ayca bismillah d' abord waaw d' abord waa APR ñoom pour ñoom parce que soo xoolee Ablaye Wade bu muy falu constitution bu Sénégal bu 1963 moo ko fal mais moom lorsque il est venu au pouvoir on a changé la constitution le Sénégal a eu une nouvelle constitution Sénégal dafa am nouvelle constitution constitution boobu moom moo continué ak Macky ba 2012 n'est-ce pas constitution boobu aussi moo continué ba 2016 2016 dañoo def une révision constitutionnelle ñu def référendum c'est-à-dire sur constitution bi on a modifié des articles kon Sénégal amul une nouvelle constitution déjà ba pare ñu ñëw euh, en droit constitutionnel dañ leen ne le droit constitutionnel effet immédiat la am suñ ko voté jour buñ ko publié au journal officiel rek ça s'applique à tout le nest pas foofu la ñuy naan nul n'est censé ignorer la loi après sa publication même soo yow soo ko yégulee une fois ñu publié ko journal officiel mm s'applique à tout le monde d'accord troisième troisième point bi l'article vingt-sept dafa leer dafa ne on parle pas de la durée cinq ans sept ans on parle de c'est-à-dire ici on dit que nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs saa yoo xasee ba def ñaari mandat jeexal d'accord nul personne allo sëñ bi waaw. alors nga baal ma yow da nga da jàng wàllum droit. dama ko jàng. jàng ko jàng jàng léegi xam nga man am na question am na question boo xamante dama koy yàgg laaj ci juriste yi. mais ba léegi nag euh, amul tontu boo xamante ne dañ ma ko ci jox maanaam suñu nee nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. Mhm. léegi nul boobu ñuy wax kan lay waxal mandat bi wala nit ki. waaw xam nga sànq soo xoolee loolu laa njëkk a expliqué au début dama ne. Euh, constitution Sénégal dafa régler ay affaire u mandat cinq ans euh, sept ans xam nga Ablaye Wade cinq ans la woon après mu ñëw nekk cinq ans mu dem douze ans mu dem xam nga kon dañoo régler ay affaire yu durée mandat mais Macky bu mu ñëwee on a euh, si révision constitutionnelle bu mu def dafa ne nul nul boobu noonu ça ne concerne pas la durée nekkul cinq ans sept ans ñëpp la concerné képp ku def de mandats jeexal nga nul loolu c'est pas du droit c'est c'est juste c'est c'est de la littérature d'accord maanaam interprétation la daal waaw xam nga c'est de la littérature ba ba pare comme expliqué naa droit constitutionnel effet immédiat la am suñ ko xasee ba voté ba publier ko journal officiel mhm. ça concerne tout le monde après sa publication moo tax dañuy na nul n'est censé ignorer la loi après sa publication par exemple suñ publier benn loi ñu ne infraction bi ku ko def dañ lay tëj yow nga def infraction boobu yëgoo ko mais soo soo demee tribunal nga ne ko yëgoo ko juge bi yoonam nekk ko si parce que la loi a été votée et publiée au journal officiel mhm. donc day appliqué à tout le monde la loi a un caractère général et impersonnel mhm. voilà kon foofu ñoom suñu jugee ñu naan non euh, pour même quinquennat alors que fii on ne parle pas de cinq an sept ans Mhm. droit concerné effet immédiat lay am suñ ko xalee ba kii day applicable tout le monde kon xam nga parfois ñun ñi comme lu may ñun ay xale lañ mais parfois tu entends des gens yoo xamante ne man boobu lu may lu ñu jàngal man parce que def naa université Cheikh Anta Diop mhm. xam nga après si laa génn ñëw continuer mes études lu ñu jàngal parfois soo ñëwee si faculté yi en fii nga ñëw dégâts des gens di wax le contraire euh, ça te fait mal en plus ñun ñuy jàngal depuis en première année de Euh, parole président de la république dafa am valeur juridique. Mhm, effectivement. Ah, parole président de la république dafa am valeur juridique te ñun pourquoi pas au Sénégal mënuñu gi euh, par exemple les États-Unis depuis mille sept cent soixante six si je me trompe ils n'ont jamais à leur constitution ku def deux mandats ngay dem c'est fini. Mhm. mais pourquoi pas ñun Afrique surtout Sénégal alors que y a eu en jeunes. xam yu yu yu yu yu yu décédé si si des manifestations troisième candidat mais en aucun cas rek ñun moom on laa là xama on tout ba loolu du am loolu moom incha allah loolu la woon ma ne xaar ma sànni si sama kàddu. d' accord kàddu kàddu yi am na solo waaye bala soo ko soo ma ko permettre ma am ma am la beneen laaj ñi nga xamante dañuy wax. Euh, différence man maanaam wàllum euh, troisième euh, candidature wala sax deuxième quinquennat ban leeral nga ñu mën a mhm. indi ci li nga xamante ni mooy différence bi entre troisième candidature ak deuxième quinquennat parce que bu ñu fàttali ne président Macky Sall benn benn quinquennat benn mandat de cinq ans. la ne la mandat de sept sept ans la defoon waaw. Mhm, te bu njëkk ba sept ans sept ans la defoon donc ñi nga xamante ni ñooy wax wàllum quinquennat ndax ci ni nga analyser loolu da leen jox raison. non du leen jox raison xam nga lu tax parce que soo xoolee comme lu ma la expliqué Abdoulaye bu mu faloo dafa def dafa changé constitution du Sénégal soo xoolee Abdoulaye bu muy falu c'est la constitution de 1963 moo ko fal mais moom bu mu ñëwee au pouvoir le Sénégal a eu une nouvelle constitution constitution bu bees alors que su amoon nouvelle constitution rek moom constitution bu ko fal constitué dañuy considérer comme 2000 bi. constitution boobu moom mooy nekk premier mandaam comme loolu moo doonoon la possibilité Ablaye Wade de se présenter à une troisième candidature mais soo xoolee Macky moom bu mu ñëwee 2012 bu mu gagné dafa ñëw def une révision c'est-à-dire révision bokkul da ngay xool ay point ci constitution euh, du Sénégal nga changé ay articles nga def une modification est-ce que comprend ba pare si biir loolu moom dafa tëj kii bi parce que constitution dañ doon wax cinq dañoo régler loolu léegi moom dafa ne euh, con les constitutions du Sénégal nit ki cinq man cinq ans lay mais mu préciser nul nul parce que jënga loolu loo leen rek nul na peut faire plus de deux mandats consécutifs léegi mmh. nul boobu noonu na xam nga mënoon nañ préciser nul na peut faire plus de deux mandats de cinq ans consécutifs mmh. tu comprends xam nga suñ dugaloon cinq ans bi day précis nul ne peut faire plus de deux mandats de cinq ans consécutifs. mais fii dañoo ne nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs deux mandats ça veut dire que amul cinq ans amul sept ans amul huit ans. soo xasee ba def deux mandats c'est fini. d'accord. léegi su ma jógee foofu noonu nga nga baal ñu rek ah, parce que euh, c'est quand même un ñu am koo xamante ne daanaka. Euh, mm-hmm. citoyen lam la jàng wàllum wàllum wàllum droit di woote ci émission bi. léegi suñu xoolee ci doxalin bi nga xamante ne euh, rapport bu Cour des comptes daal dina koy fësal maanaam mu am ci yenn ci ay ministres yoo xamante ne wala sax ex ministres yoo nga xamante ne jot nañ leen épinglé ci ci rapport yi leen ndax procédure bi nga xamante ne Cour des comptes na ko ci ministère de la justice mën nañ koo appliquer ba yoon amal ay daan ñi nga xamante ne ñoom lañ jàppale dañoo daal di luubal yenn ci ay koppar jëmee ci ci nañ doon yoree euh, koppar yooyu la jamonoy Covid bi. waaw xam nga loolu c'est possible dans un état sérieux mais aussi c'est possible dans un état où dañoo bëgg la justice mu fonctionne la justice elle est là pour tout le monde par exemple parce que Mansour Faye je me rappelle Covid bi un journaliste Babacar Fall mos na ko la question mu ne ko soo ma ko waxaatee ma porter la plainte en plus buñ ne ko dañ lay convoquer OFNAC mu ne moom dafay bénéficier wu si benn immunité mhm. xam nga mais léegi exemple si on prend un exemple terre à si on prend l' exemple de Serigne Bassirou Guèye le pro l' ancien procureur de la République mhm. xam nga kooku lorsque le président Sonko mu génn ne da ko da ko porter plainte boobu mënoon nañ ko mais actuellement le fait que ñu fal ko au niveau de ah, l'offre des bénéfices d'une immunité mhm. est-ce que gis nga lool ça veut dire que ñoom cour de comptes mun na solliciter loolu mais immunité boobu noonu il faut mu dañ te immunité boobu noonu c'est le président de la république c'est-à-dire ñun suñu euh, système colonial bi moo nekk Sénégal cest à tout des basé aussi président de la république mm-hmm. parce que te jii nii pour ñu convoquer yenn ministres yi parce que dañoo am ay immunité ba pare dañoo am ay juridiction spéciale moo leen mun a convoquer du n'importe quelle juridiction moo leen mën a woo mm-hmm. léegi ñoom nag dañuy profité si loolu dañuy profité aussi loolu di def lu leen ne en plus en sachant que ils sont aux côtés du pouvoir euh, dara dara du leen si fekk quoi mais c'est mal parce que ñun ay xale la ñuy wax ni man j'ai moins de trente ans ay xale lañ suñu gisee loolu ça nous fait mal ñaan nañ yàlla ñu ñibbi si service suñu dëkk am d'accord merci c'est compliqué voilà waaw man moom franchement émission bi xam nga chaque fois su ma demulee jàngi wala dew ma génn rek je mhm. vous suis et je vous remercie parce que dangeen ñuy permettre ñun ñu nekk à l'étranger tout le temps di joxe suñuy xalaat am mhm. parce que du ñu am possibilité bi kon le fait que ñuy woote di joxe suñu xalaat aussi waaw ñoo leen si remercier bu baax merci euh, gis nga yow mbokk bi dañuy garder contact régie su nekkee mën ngeen ma ko mën ngeen ma ko envoyer ah, sama numéro après mag moom dinañ déggoo ci ci ci yeneen ponk incha allah amul benn problème ça fera un plaisir soxal na mbir mi merci waay merci. ok merci waaw di ko di ko jaajëfal bu baax a baax moom mbokk moom mi lay nag nekk koo xamante ne xelam màcc na ci wàllum yoon ak yoonal nekk un jeune sénégalais jamono ji nag moom ñu doon woowee ca Maroc dégg ngeen li nga xamante ne jot na ko leeral jëm ci euh, ni nga xamante ne noonu la yenn ci ay ministre yore woon sax fonds yi leen dékkoon ci wàllum Covid ndax yoon mën na daal seen kaw comme ni ko Cour des comptes sàkkuwee maanaam ñu ubbi ay information judiciaire jëmee ci yeneen dossier ñëw na itam ci déclaration de politique générale bi nga xamante ne premier ministre Amadou Ba jot na ko def ni ki dem ci assemblée nationale taxawaay bi jot a am ca ba ñuy wax troisième euh, mandat wala sax deuxième quinquennat bi nga xamante ne ñenn ñi fare ci président de la république ñoo ngi àddu jëmee ci moom nag jot naa leeral que ne euh, amul benn texte wala texte sax euh, constitution sénégalaise bi nga xamante ne ci la ñuy daal di tënku rek jamono ji Euh, mënul may ki nga xamante ni moo di ki fi nekk jamono ñii di président de la république mu daal mën na samp nëndam ngir bokk rek ci yëf yi donc képp koo xamante ne rek bëgg nga indi sa xalaat ci li nga xamante ne moom la ñuy indi tey di mbokk ñi seetaan mën ngeen woote ci numéro yooyu noonu affiché ci écran bi